ñenteelu fan ñuy déposer parrainage ci conseil constitutionnel costa bi nag mooy am na déception. sans explication euh, dañu lay wax ni la am nga dix mille et parenage yoo xamante ni euh, nekkuñu ci fichier électoral mais Aminata Touré c'est pas n'importe qui. muy coow loo xamante ni ñi ko yëkkati bëri nañu. mandataire Alioune Sarr bi wane meram. ñu bare ko ginnaaw bi mu defee recours. trente neuf mille neuf cent vingt parrain gisuñu leen. maanaam fanweeri junne ak ñaar ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ñoo xam ne ñoo pare ne CAP 2024 gisuñu leen ci am na ñoo xamante ni jàll ñu. wante teewul ni mbirum parrainage bi jaar na yoon. en ce qui nous concerne jàpp nañ ni processus bu ñuy jaarale c'est transparent. tey jii fukki candidature moom lañ doon càmbar. ci fukk yooyu ñaar lañu wax ñu ñëwaat. di Aminata Touré ak Mame Boye Diao. ñett ñoo ci matal seen parrainage. comme ku ci mel ni Khalifa Sall. man am naa chance déposé koo xamante ne candidature am kenn amul benn xel Sénégal bu nanguwul ne Khalifa Sall est prêt pour être président de la République. ñi nga xamante ni ñoo féete ci nguur gi ñoom. beneen façon parrainage la ñu def. ñu déposé parrainage des élus ndaxte wóoroon nañu ni foofu du ñu ci am benn doublon. fichier bi nag nee na ñu lépp a jaar yoon na. il est euh, valable il est euh, fiable a plus de quatre vingt dix pour cent. lu soxal Anta Babacar Ngom ñoom am nañ mbégte. ñëpp gis nañ ko sur le terrain donc lii du surprise. fi mu ne nii nag juróom-ñaar fukki candidature moom lañ jotagul déposé ci juróom-ñaar fukki yooyu juróom-ñeent ñoom lañ ci retenir. mu des rek lu toll ci ñaar fukki candidature yoo xamante ni war nañ ko càmbar.